waaw dañoo def euh, benn week-end de nettoiement euh, muy week boo xam ne bii euh, démb lañ ko tàmbalee ak mu àgg tey boo xam ne bi dañ ko jëloon pour vraiment setal plage yi parce que dañoo constaté woon ne plage Mbaling ak bu warang ak bu ñaniñ dafa bari commencé woon bariwaat mbalit te xam nga ne dafa am benn dispositif bu ñu mettre en place dans huit villages de Malicounda mu tudd ko ay comité de salubrité nga xam ne dafa am quatre côté bi am quatre dans le nord Euh, ñu góorgóorlu won ba danaka gagné won balit bi ci dëkk yoyu mais nak ñu constaté né plage bi balit bi commencé wat na ñëw mais on a constaté que nak balit bi jógewul ci sun dëkk yi mais ci benen commune lay jógee géej ji mo koy téral ci plage yi parce que dafa am benn commune bu ñu dendal bo xané peut-être dispositif balit bi melul non wara mel ñu bari ci géej tefes lañuy dem di tour sen balit buñ ko touré nak courant yi ñokay drainer diko diko tour ci sun plage yi chaque jour ay quantité balit bu bari ñoy teer yoy di teer nak ñu accumuler wu accumuler ba muju bari nak ñu né nañu jël benn journée nettoyé wat lepp donc demb ak tay ci lañu ñu yendu vraiment jigen ñi ak seen groupement yi xalé yi góor yi ak ñëpp ñang ñi ñonga nga plage ñii ñoo ci tali bi vraiment mobiliser wu mbali yi ñu warang ak ñeneen yep ba def liggéey bu mucc ay bop fofu teeru bi la fofu effectivement tamit euh, amon na bulldozer bu fa yob won surtout ci coquillage yi lolu déchet coquillage motax ñu mel nonu parce que coquillage bu ko fami toje ba pare. amuñu ben dispositif bu leen di permettre ñu def ko ci ay caisse ramasser ko yóbbu dañ koy jall non bu yagge day bari ni mu nekké nonu la nekké point de Sarène nekkaat benn peut-être ñani dekk yi nga xamné yeb dafa am terre non la démé yoy nak dafa laajal benen opération spéciale bo xamné bi dañ ko wara def pour que ñu jël jël ay camion jël ay engins ramasser wat ko peut-être il va falloir ñu dafa ay ben yo xamné dañ ko fay bayyi pour que jigen ñi au ñuy tour de manière sauvage mais ci ben yoy ñuko ci ciy sotti benn à ordre loolu peut-être ñu buñ ci travail ak service d'hygiène gënoon na garaaw noonu sax parce que am na benn usine boo xam ne bii déchets yi mu doon tuur ci géej gi daa demoon ba plage bi sax da yàqoon mais quand même def nañ fa ay missions yu bari ak sous-préfet ak service d'hygiène ba ba ñu arrêté woon euh, loolu mais terewul ba léegi am na ay usines ay unités artisanales yu ndaw yu defar ay tuufar yu defar ay yéet yoo xam ne seen déchets yi liquide yi ci géej lañ koy tuur loolu aussi dañ ci taxawaat nañ taxee woon ca bële ba mu faju dañuy taxawaat ci yooyu rek incha comme tey gis nañ ko dinañ ci am matuwaay yi nga xam ne dinañ ko ci jël pour que loolu mën a faju message bi de mooy euh, il faut ñu am ay comité de surveillance de veille yoo xam ne yi ñu bañ a tee bàyyi ba mbalit mi bari fu ñu toogatee 15 jours ñu def benn opération en tout cas maa ngi jaaj félicité groupe bu yi parce que ñii mat nañ à peu près une quarantaine de femme yoo xam ne yii tous les dimanches dañuy nettoyer a ah, li ma leen di lancer rek mooy nañ ci jàpp parce que mbas mi ñuy tudd ak leneen ak leneen lépp luy feebar bu ñu setee mën nañoo gën a dimbale pour que ñu mën a gën a jàkkaarloo ak feebar yi. donc set nag la ca jiitu mooy sa mbalit nga bañ koo gàdde ci sa kër bañ koo tuur ci mbedd mais nga yóbbu ko fañ ko war a yóbbu wala nga dajale ko ba oto ba ko war a jël si jël si ko nga bañ koo tuur de manière sauvage je crois que message boobu rek laa leen di lancé di leen ñaaxaat pour que mesure barrière yi nga xam ne moo ñu dimbale ci mbas mi ñoom ñëpp ñu ñu taxaw ci ba liñ ci bëgg ñu am ko. dañu jóg pour wax rek mbalit zéro zéro déchet chaque dimanche ñu fi nekk di nettoyer ba tey aussi monsieur le maire indi fi initiative bi ak ñoom Habib waa comité de salubrité.

mbalit mais aussi mun na nekk fréquentation yoy yoy mun na dem ba indi palu wala muy indi yenen maladie pour veiller à ce que l'ol bañ a am nag ñu ne du ñu toog ba mu ñëw ñuy door a mais dañuy jóg bien avant pour balaa ñuy àgg foofu ñu mën a jekkalaat suñu taxawaay ba lépp lu ñëw rek ñu mën koo daan. man moom sama mbokk soxna yi dama leen di wax ne ñoom monsieur le maire ak ñi mu àndal taxawaay bi ñu am am na luñ ñu lancé parce que bu njëkkoon bu ñu waxee set jigéen ñi ñooy jiitu.